ngay fen wala am tus wàcc si tànk yi góor du ma non góor na sëñ Ba moo góor tus daw daw daw taxaw war na loolu nañ ko fi fii ngeen jëf mbokk internet yi mbokk amateurs yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare fii ci arène national waaye Yaram Art Events moo ñu fi woo ci combat bi nga xamante ne combat derby la diggante fas ak Thiaroye wala Fass ak Lamsar yëpp benn la rek Coly Faye numéro 2 ak Pape yaakaar naa ne combat bi daaw moo waroon taxaw bi Coly Faye numéro 2 di bëre ak Ada Fass waaye yàlla dogal na ci saison mille 2022 2023 bi ci lañ koy bëree ndax waaye yaaram Art Events joxaat nañ ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy amateurs yi ku ci nekk nag am foo jógee Coly Faye numéro 2 jóge ci général jóge ci ki nga xamante ni moom mooy Ada Fass Pape jóge ci ki nga xamante ne moom mooy Taxe ak ki nga xamante ne moom mooy Abou Ndiassé kon nag day fay bor bi wala comme ni olof di wax jeexaat foofu rek doom delloo fa sab loxo digganteem la ak Coly Faye numéro 2 Coly maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyu waa àdduna bi. waaw bisimilah auzubillahi mina wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa ngi lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli ñaari waajur di di ñaanal sama yaay bu baax fa mu tëdd gënal ko fi mu jógee di ñaanal sama yaay bu baax di wax ni kooku daan na si man lu bari tey ma demee bay génn di ñëw fii mm-hmm. sama mag bu jigéen di ma sotti lox jooy naa jooy xool boo xam ne ma soo gis ko ma geesoo arab xool fara sama yaay laa gisaat mm-hmm. kon kooku dafa nekkoon di ko xam ne ku sori woon ci man la mm-hmm. sama lépp la woon parce que alxuraan karim dama manqué trop mais yàlla baax na yàlla ko yàlla suñu borom yore taxaar ko àjjana yàlla bàyyi suñu pap ba si kanam kanam kanam di ko may wér di nuyu sama xarit yi ma àndal yëpp mm-hmm. sama grand grand nuyu di nuyu bas de Galassi la Baye Sall Iliman Maalim Mbaye Ada Fass Sauveur maa leen nuyu bàyyiwuma kenn Ada Fass maa ngi lay bëggee di la ziar lu bari sama Sauveur di nuyu sama gars yi waaw la tudd di nuyu sama gars yëpp di nuyu Diamaguène Sicap Mbao di woo waa Diamaguène ci combat bi di woo woo ñëpp di woo ilu ndox mi yëpp bàyyiwuma kenn di waa waa Jongwaar waa Palmarin waa Ñojoor Sio Falia Bassoul Bassar maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn waa Thiarane fépp munde ba Gambie maa ngi woo ñëpp. Papa maa ngi lay fay di la bëggee di bëggee sa mbokk journaliste bi nekk yëpp di nuyu àdduna yëpp waaw di sant sama yaay ak bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal wér. waaw di àdduna yëpp waaw wax ni ma ñëpp ñaanal maa ngi ñaan yàlla waaw yàlla génn ma si combat bi ak jàmm ak salaam di sant ñëpp ñi nga xamante ne ni dañ may jàppale waaw. di ku ci mel ni soxna xayta sekk hmm. fekk parce que làmb dafa metti hmm. waaw te nekkul chaque jour ngay bëre te ñoo ñoon même soo bërewul dañ lay soutenir di la jàppale di yëkkati seen doole di la jox hmm. waaw ku ci mel ni maître ba l'avocat de la jeunesse Pape Mama Fall Guédiawaye moom itam da ciy jàpp Pa Abdou yaa ngi dégg waaw euh, grand aada sama grand aada borom Milan moom itam da jàpp bu a baax a baax a baax waaw ñu ngi koy sant ñooñu mënuñu leen a ñàkk bañ bu ñuy euh, def dara ñu leen si ñàkk bañ a jiital mm-hmm. parce que ay nit lañ ñoo xamante ni dañ ciy jàpp baax di yëkkati seen doole du ñu jox du ñu jàppale moo tax ñuy jàpp gars di dàq ñuy daw te ku ku ma ci taxawal dama lay dàq nga daw loolu mënoo ci dara mais nag yaa ngi bëri tarkindaa bu ñuul waay déggoo li ma la wax xanaa quart de finale la des na demi finale ak finale ah? waaw quart de finale laay bëri nii ah. mu des demi finale ak finale incha allahu rabbi bu defee kii mu ngi lay junj ay wax lu rafet lu ñaaw xam si man baa ko muy wax si lu ñaaw rek gis nga ku gëmul li nga kon doo toog naan quart de finale lay bëri man final lay bëri moom quart de finale lay bëri. man final lay bëri. sa hmm. ko def demi final parce que final bi. final laay bëreeg moom moom na ko def demi final man ma def ko final wax laa la wax nag. xam nga lu tax mënul bëre final. xam nga lu tax mënul bëre final. day xaar. man li ma wax xam naa fi ma ko teg te yéen xam ngeen fi ma ko teg quart de finale laay bëre des na ma demi finale ak finale. Pape yaa ngi wax xanaa ragalu ma fi ma jëm barke alxuraan lamin billaay walaay taalaay du mën ak moom te bu arbitre sifflé nga xam ne du mën ak moom kii du ma ñi ma bëral moom moo ci gën a ñàkk sens. adversaire yi moom am yëpp ci kii moo ci gën a ñàkk sens. kii respecté kii du respecté wu ma ko. respecté wu ma ko jéemu ma ko respecté kii ku ma conseil ci sax li may conseil du ma def dégluwuma ko jéemuma ko respecté barke alxuraan bu arbitre sifflé ma ko day daw dama koy jàpp daan ko billaahi dama koy jàpp daan ko allah rabbi kii maa ko mën maa ko ëpp doole sama ñeenti soxna yi laa koy booleel ñu duma ko daan ko attaqué koñe gagné incha allah mënoo ci dara da ngay xaar ki lay wax la man ñem boo may bëri bu soo gis nit ko ma daax ah, moom moom bu ne moom bu ne respecté wu moom moo koy wax même magam du ko wax ay mbokam wax moo loolu du ma si tontu respecté wu ma si moom la kii du bëree xelam moo tax respecté wu ma bi noonu ma ko si tontu ah du bëree xelam. moo tax respecté boobu du ma ko si tontu da a ko defal mu def. mais deux derniers combats de. déggoo ma la wax. billaahi da nga ko naan mu def moo tax li mu wax noonu du ma ko si tontu. Ah. respecté moom la yem fii la koy waxee. respecté moom boobu ci bii la yem mais kii moo la gën xam ne respecté na ma kii bu tuddee bëgg dina xam ne am na combat lu leer laa lay wax Lamine kii bi yaakaar ne combat bi de moom moom day yomb barki maam Cheikh Rafal mu nax boppam te ku ko wax ku na jaar ma jaar ñu daje fi man ak moom arène nationale. lu mu liggéey doyul. man sax lu ma liggéey doyul yoo xam loolu fekk nga ma may liggéey. waaw oh, fekk naa la januar sax. fu ñu januar fekk nga man dama bëgg entraînement man entraînement moo li ma gën a fonk ci booy bi lamañam bu rëy ak ni mu mel ak ni mu waxee ci su ma daanee loolu sama gàcce la. sama gàcce la. par force dama lay mënoo ci dara par force. arbitre bu sifflé ma attaqué la koña la gaña la loolu mënoo ci dara li may def say morom laa lay def mënoo ci dara barke alxuraan loolu dara nga ci man noonu laa mel je suis paré damaa pare je pare si ay wax la yem je suis si ay wax la yem mënoo gëm li ma lay la koy dafa yaakaar ne damay wax pour wax comme nii rek barke alxuraanu karim adversaire yi ma bëreel moom moo ci gën a moom moo ci gën a ñàkk balaa ñoo dem fii du ngeen a yow ñu bëree suñu bopp la daal la fii léegi ba mars ngeen bëre fi bu wax dinaa li bañ li muy ci dara bu arbitre sifflé du ma def nii tànk bu arbitre damay dox si kawam te su ma doxee si kawam par la force day daw sa noonu la demee nag sa combat mu dama arrière te gis nga combat mi daan yëpp daa arrière soo ko daan. Hmm. du ma arrière bàyyi leen loolu. su arrièreul. su arrièreul dootoo ko dolli kon ma décroché nga xam. kii bu dëgg ji laay wekki kii bu arrièreul kii tabal la kii du xeex rek xaañ na dem laaj jaraam man ak moom fii arène nationale fekk na leen fi. mois de juillet fii fii la leen fekk fii man ak moom. dama ko dóor ba mu ne ñu doon si renseigné dañoo néew si. warul sax di di di di di fàttaliku combat ah, boobu. tax na war na war na sax war na sax ruus loolu. yaa ko indi. war na sax ruus yow yaa ko indi. yaa ko indi ma la koy wax. moog Zé bu amee leneen looy wax nga wax ko. man mani la. waaw quart de finale laay bëre. man finale laay bëre te incha allah bu combat bi jàllee. yow di nga xam ni quart de finale laay bëre. man bëre ma yow quart de finale finale laay te demi finale ak finale dama koy bëre incha allah rabbi dama koy bëre ak ñoom ñoom mënuñu si dara. am loolu daa am si lu ma jugee lu métti. te maa war a ñëw prouvé yow ci li nga jëm a ko gën a métti. ndax bi amul xaar xam nga du ma fi kii du ma bëree moom kii dama koy dàq di ko duma di ko duma boo ñàkkee sens dama koy duma ba mu tëdd ba mu tëddal boppam jébbalu barki seexul xadim. xam nga man góor duma duma. booy damaa soxor de. man ba ma demee yet sama ndey ak sama ak samay mag la sama yet damm. yow doo yaa may duma yow. macha allah loolu am na solo mois de mars la mois de mars waaw da ngeen tàggatoo mois de mars la ñu ci ànd ak waa Yaram Art Events ah ñoom Bakary ñoom Idi ñoom ñëpp ak staff bi sama xarit bi dëkk Thiaré nu mu tuddee euh, sama ah Lat Diop oh Lat Diop bu kii bu bu bu bu kooku noonu wax <laughs> macha allah loolu am na solo du ci mën a ñàkk waaw nii nag dañuy neexal rek waaw pour jaay combat bi waaw ay naw la lañ. ay mbokk lañ tamit xam naa après combat bi moom danañ danañ bokkaat seen caaro yi waaw ah bokkuñu dara kii Fall la dëkk caara la dëkk bokkuñu dara luñ bokk maag moom bokkuñu bokk réew mi waaw la ñoo bokk suñu maam Adama ak Awa mais caaro bokkuñu fa dara amu fa dara lu mu fa am na ko wax laaj ko mu wax la ko barke Serigne Saliou Mbacke ëppale wu ma caaro dara man caaro géej laa dëkk caaro géej heure bu ma fa bëggee dugg ma fay dugg sama kër papa fa la nekk suñu kër famille fa la nekk man man lébu pire laa caaroy géej ci bopp caaroy caaroy caaroy laa dëkk lébu daw laaxu nga lébu daw laaxu nga caaroy amoo fa dëkk di nuyu waale samay mbokk yi caaroy fa laa dëkk da ngay nawloo waa caaroy moo gën caaroy fa laa dëkk da ngay nawloo man am caaroy laa ko indi kii la moom indi ko caaroy Fass la ko yóbbu Grand Dakar kontaan naa ci yéen bu baax a baax di nuyu waale di may tàggatoo di nuyu waale géej bu baax a baax sama mbokk papa yi di leen nuyu sama mbokk yaay maa ngi leen di nuyu bu baax a baax sëñ Saliou Lo sëñ Saliou Lo maa ngi koy nuyu bu baax Euh, Mara Mbour maa koy nuyu moom tamit di ko woo ci combat bi maa ngi baax a a baax ñëpp nga xamante ne ñu ngi ñuy jàppale ñu ngi leen di nuyu ku ci mel ni Cheikh Ndigal tamit da jàpp yaa ngi dégg MG MG da ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax soxna Xayta Seck encore Lac Rose sama mag maa ngi koy ñaanal combat bi jëm tamit yàlla may ko ci ndam maa ngi ñaanal Gris maa ngi koy ñaanal yàlla may ko combat moom tamit maa ngi koy ñaanal yàlla may ko combat mu am ci ndam waaw di ñaan écrit Fass ñu fa am combat yëpp yàlla may leen ndam ñi amul combat yàlla may leen komba ñi nga xamante ne ñu ngi sonn di jàpp sama grand aada tamit maa ngi koy woowaat ci combat bi waaw maa ngi koy woowaat ci combat bi encore mu ñëw jàpp si parce que combat bi combat boo xamante ne nii bëgg naa ko bëree noo xamante ne nii yii muy def nii yëpp dafa tiir day sóob Pam Ndoy képp kuy bëree ak moom barke alxuraanu karim képp kuy bëree ak Pam Ndoy boo tëddee doo nelaw te loolu noonu man man maa la koy man maa la koy wax fii waa di woo waa Grand Dakar ñaari tali NCB bi yëpp maa ngi leen di woo di leen wax ñu ñëw xam nga dooleel ma jàppale ma waa ASECNA ñoom maas kafe ga yëmbal asegna bi yëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi woo ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ma jàppale ma mhm. yaa ngi dégg ma jàpp waa ji nii li si des ci digg ci biir géew gi man maa koy gérer ñoom nañ ma ci kaw incha allah rabbi ma gérer ci suuf maa ngi woo ñëpp daal lamin bàyyiwuma kenn képp koo xamante ni euh, tudduma la rek yaa ngi dégg képp koo xam incha incha allah amul amul problème dinaa mobiliser bu soobee yàlla combat bii nii bu soobee yàlla dina gis mobilisation bu musul gis ci àddunaam li ci des ci biir géew gi man maa koy man maa koy def bu soobee yàlla. Athia lan ngay tàggatoo. waaw Lamine may sant sama gars yi. di sant ko di woo sama mag ku mel ne sama yaay Faña Yade di woo grand Lamine Wade ma koy woo di woo suñu père Abdou Aziz Gueye Abdou Aziz maa lay woo si làmb ji man sa doom ko li fay dë nga yow jàpp si bu baax. mais yow nag noo ma a jàppalee rek. Aziz Gueye bu CNG wala bi bu jàmm gën ak bu CNG ñoom ñaar ñëpp. waaw may woo képp ku ma limu rek xam ne juum may woo suma gaa yëpp di woo fukki penjee ñaar yëpp mm-hmm. bàyyi ma kenn maa ngi woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp Lamine kii. Mm. di woo monsieur le maire maître Ndiaye ma ngay woo si làmb ji bu baax di woo Aziz Gueye adjoint le maire ak Jamil maa ngi leen di woo si làmb ji bu baax a baax may woo 14 ASC Thiaroye Gueye yëpp bàyyi ma kenn. di wax làmb ji seen làmb la. di ngay wax may woo récupéré dal jàmm sama gars yi. waa Mbeer mi waa Petit Lion waa Camp bàyyiwuma kenn waa zone franc grand yi grand juif petit juif ñëpp may woo ñëpp bàyyiwuma kenn. kii li ñaar da koy dal force. li ñaar bi da lay dal force. Oh. loolu la. waaw ah. maa ma di wax promoteur bi. ñu ngi koy ñaanal tamit. ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax. muy dem bay tëgg ay journée cent millions deux cent millions ñu ngi ko koy ñaanal parce que nekk ndaw di jàppale say ndaw réew jeunesse bi kooku dañ koy ñaanal waaw fi mu jëm fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa suñu borom yeggale ñu bëgg a yegg yàlla nañu fa ñu ngi woo ñëpp daal si combat bi képp kuy bëgg Pape Ndoye rek ñu ngi lay woo ci combat bi ngi ñëw teg ci loxo jàpp si waaw Grand Dakar bi NGB bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëmbal ASECNA bi yëpp ñu ngi leen di woo ci combat bi ñëw du stade ba mu fees dell booy bi du kaaru problème neex na. jërëjëf loolu am na solo. ñu surtout loolu tam ñu woo sponsor yi ñëw jàppale Bakary waaw ñëw jàppale ko ba sponsor yi leen wax ni kii ndaw la. ndaw la promoteur yi mag li ñu mën tëgg mën na tëgg mais boo gisee li xëy na day raam. day raam te yàlla na acc si kaw ñu koy ñaanal di ko wax ni ku baax la. di wax sponsor nañu wuusi laa ma ji du yomb de. déedéet billaay wala grand combat fi tëgg sa gaay fi daa combat la man jàmbaar la waaye même jour ba na solo la fii ci arène nationale ci combat bu war a dox ci diggante Tapha Mbeur ak Gamou Gueye ñaari mbëri war a ñëw foofu jàkkaarloo Tapha Mbeur Gamou Gueye jour boobu ñaari ñi ciy bëre sax ñoom bëre ngeen ak ah. ki daan na kii kii daan na kii. ñaanal gàmm ko yàlla suñu borom may ko ndam. gàmm nga di ñaanal Mama Lamine di ñaanal Omar Kane rek suma xarit di ko ñaanal di ñaanal Bas de ndam. képp ku am combat caari géej ko yàlla mu jóg. ok waaw. père loo a yokk. waaw li ma bëgg a wax mooy rek. xoolal caméra yi. gërëm ñëpp parce que tey jii suñu président di Abdou ah, Bourkhane Wade waroon na fi taxaw tey mais bu ñëwul maa ko fi teewal waaw man damay sant sama ñaari doom yi combat ku nekk bëggoon na ko taxawoon na promoteur jaar ci ginnaaw tëgg ko yàlla def ci li mu ci def moo waroon taxaw lii taxawaat tey man caaroy lam saar dama fa am nattu dama fa am ñaari kóllëre waaw waaw may may may la fii waaw may may la ma ñëw tuuti rek xam nga xam nga dama waaw ma xoolal waaw may la ma tuuti rek ma ñëw ah waaw dama fa am Ousmane Diop ci Thiaroye am fii nu sax Max ñuy samay kóllëre ñi yëpp di sama njaboot dama bëgg làmb ji dañ koy rafetal ñi ay soutien de famille lañu dañuy mayante xaalis kaw tribune bi ku ne ku ne ñëw ñeegale waaw gaaw dama bëgg rek xale yi rafetal làmb ji bàyyi ñaari mbër yi bëree loolu rek laa bëgg boobaa yàgg yàgg waa CNG la a koy bàyyi loolu am na solo na rek ah jërëjëf yi ñu photo